jox leen ko. non nata du leen ko jox de dañuy abonné ci bas ñu laaj ko bas parce que ñoom nanguñu ci joxe numéro bi. waaw kon ñu ci bas laaj ko bas naa bas millionnaire la bind ci page am. en tout cas ñi mujjee ñëw xam leen ni bas dugal na yónnee na juge vidéo ba ñuy ànd di dugg ci dëkk bi ci àll bi ay sa làqatu Quand on a donc la libération de Nabou, c'est des rumeurs, mais c'est bien sûr que c'est des rumeurs. Ah oui, qui t'a mis question pour pertinente Windows. comment ça se fait que Aïcha, elle savait que euh, qu'on l'a cherchée et elle n'a pas supprimé les vidéos. Est-ce que du yalla le la naré wér rek da ngay wéyati gaa yéen a may dégg am na ku ma woo ne ma live bi daa tëb loolu tax ma ubbiwaat sama micro am na ku ma woo ne ma live bi laa tëb defaat leen demande ma yéegal leen comme munu leen yéegal seen bopp defaat leen demande ma yéegal leen gé génnaat neen nee nañ ma live bi daa tëb xaar nat nat euh, nataa bu yéegee dina leen yéegal nee nañ ma live bi laa tëb quoi. voilà dafa tëboon kay. waaw day dafa tëb looloo tax ma duggaat. waaw continué leen yow léegi mën nga yéegalaat ñëpp del demande yi. السلام عليكم وعليكم السلام تمام ما شاء الله الحمد لله من دي مرسل لا عندي وول اها مرسل اها ما يصير لايف كاي اها كونتان دي يالنا لين يالا جابالي سيتو جيش يالنا كو يالا جابالي يالنا كو يالا تخو ومك بس الو oui. ñu waaw waaw depuis sànq depuis maa ngi laajte numéro Bas. c'est parce que euh, dama ko soxla aussi euh, dama sama benn frère bi ma bokkal ndey ak baay. non non non non non ma chérie. waaw. abonel ci moom s'il te plaît. non non wër naa ko mais gisuma ko. waaw abo abonel ci man après on verra dinañ xool nga envoyé ma message. ok dafa am lu tax ma duggaat xam ngeen ne tàggoo parisienne mën na defaa demande nata kontaan naa si li ngay def. waaw dëgg la bas nee na ñu joxe numéro mais fii dañoo wax ba sonn. nee naa leen dem leen page am bind ko abonné leen fa. d'ailleurs man maa ngi bëgg a sonn si joxe numéro bi joxe gum naa 17 personnes numéro bi fa laa mën a yem nag. waruma ah, joxe numéro kenn. waaw dem leen ci page ngeen bind ko dama wax ba sonn. dëgg la amul benn problème man personnes abonné nañ ci moom sax man gan laa man gan laa si seen kii juge dugalal may leen ma may leen ma may leen ma may leen ma ma wax bas la defoon soxoruma njaay di di ma sonal naan ñu ngi koy seet bas yi dafa bëri ma ne ko dellool sa tuur bu njëkk ba ba ma la njëkkee xam mu defaat bas milano bas ah, milano kay neex na xam bas milano ngeen ni bind ok merci loolu laa xamul maa ngi jéggi bu baax ngeen teg ko page am noonu. ji eh, yëgalal ma parisienne parce que sama téléphone day dafa daanu léegi day dafay dafay écran bi munoo yëgal parisienne bu yëgee moom na jéem a Je waaw yëgal yow mii nii soxna si. naa la jàppale jox la ko nii naa s'il te plaît. Euh, waaw wallaay dañoo dëddale sama mag ak sama yaay rek looloo tax ma siy sonn. Je leen ma man daaw ma di ñëwaat. am na tam ku may message juste. live baa ngi daw ci rajo bi yëpp na daw fu leen neex. merci en mais fan lay daw fan la live bi daw fan rajo nii. sànq ah? rajo bi yëpp lay daw. rajo yëpp xaw ma sax jéemoo leen sax seetaan. ba su fi duggatee dugg leen page wax naa leen ko ba sonn. dugg leen page am bu leen bàyyi ba mu dem ngeen naan ma numéro suñ koy jot jotee parce que man aw ma jotu pare live war noppalu lekk yàpp naan meew topp di wuy ay doyewu leen ma dara waxtaan ba si yàgg numéro bas laa soxla pour man da ngeen may indil benn xibaar bu ma yëgul mënuma topp di joxe numéro bas jox tal naa leneen taluma loolu ay message ay numéro numéro wax naa leen ko. xam nga eh, eh, eh, juge juge juge ah. maa ngi fii ak sama iPod bi léegi euh, effectivement mi ngi daw Feeling Dakar mi ngi daw ci site yu bari ah, moom la moom laa dund fii. waaye dañoo nekk star moo tax muy daw fu nekk nata da ngaa nekk star mi ngi daw muy daw. waaw mais yàq. Ah, <laughs> mi ngi daw yow da nga nekk da nga nekk journaliste te xamoo ne journaliste nga léegi journaliste yi émotion bi nga am ak ni ngay tontee ni ngay waxee dañ koo bëgg a sàcc ñu ngi may dëgg bu la neexee. dañu tas nata day nëbbu boppam nata day nëbbu boppam nii. dégg leen. te wuy ma sànq yaa ngi mentionné lu garaaw nata. waaw euh, mooy la fekk ngeen naan xaw ma Aïssa am na li nga waxoon sànq ba nga naan Aïssa xaw ma lan Nabou Leye am na question bi. Euh, ban question la. ca xaalis bi la daal. ban question la. nañ tapoté live bi yéeg déjà nañ tapoté parce que mi ngi bëggee. tapoté la si hmm. côté xaalis bi la. waaw. voilà mu ne. Euh, kii moo nëbb Aïcha n'est-ce euh, dafa ne dafa ne dafa ba ñu ba laajee kii euh, Nabou dafa ne Bas moo nëbb Aïcha loolu la wax. dafa am rajo yuñ ma yónnee léegi xam nga dama leen doon xas. waaw naan leen de leen def insuñu juge bi. ñoom ñëpp xam nga luñ def. ñun ñëpp nañ def ne fang sa rajo ba capture d'écran xaaral ma yónnee leen ko. ngeen def <laughs> yàlla. capture d'écran dinañ nañ def yóbbu ko sa rajo yëpp. ah non man feeling maa koy xool ni effectivement. laa gis gis naa sa message bi laa gërëm. <laughs> mais loolu tamit loolu la tamit de laay bu jàmm nga yóbbu ko ci rajo tamit. mais yow information nga ñëw fi koy jox. mais live mbedd la tamit de dañ ko xoolee loolu. Ah? oui. am naa dëgg ngeen ñuy naan am na benn prisonnière bu sonal Nabou Leye foofu am naa dëgg ngeen di mër boobu. waaw. léegi la fekk d' li ma dëgg d' après ma fort ci ay yu wéy koo dëgg. waaw liggéey day bëri ay lu ci ëpp. waaw d' dafa ne moom la fekk lu mu ne Aïcha kii moo ko nëbbu loolu moo tax kooku di ko sonal. passe. non non non loolu c'est pas je ne pense pas que ça soit ça. waaw loolu laa dëgg dama ko dëgg quoi dama ko dëgg. xaw ma nag. loolu bu amoon passe dina ko wax xanaa. loolu bu amoon passe ko wax. mais daf leen ni juge dugal na ko. mais dañ tappate affaire yi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi bëgg de. comme ñu tapoté live. Eh, ay nañ may ay cœur yu vert ay cœur yu vert ñu tapoté ko. Eh, eh, presque deux deux presque 200 2000 personnes quand même war nañ mëna a tapoté def ay cœur affaire yi voilà les voilà voilà super super les cœurs verts. Feeling Dakar daal ñu ngi en direct je pense bien. voir la, la vidéo. allo man maa ngi si biir live bi wala nekkuma fi yaa ngi fi

waaw mi ngi noonu seen live baa ngi en direct Feeling Dakar mi ngi nii. en plus juge yaa leen ëpp audience foofu waa Feeling Dakar doo seen morom. waaw ah, juge bu leen may bër sax. Hmm? mi ngi noonu moo ëpp visibilité ay affaires yi nii moo ëpp visibilité. am na ko góor ko doon wax léegi de. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. maaleykum salaam. yéen ñëpp di leen ziar. mooy fay waaw di leen ñaanal rek yàlla ndax wax dëgg yàlla mais do do doguma dogu kiiwuma leen de coupé wuma leen de mais man je reçois tellement de messages et d'appels actuellement nag man moom maa ngi <laughs> damay damay quitté de juge dara man je reçois très très je reçois la man pare naa si live bi de ba suba ma indiwaat yu bees yéen ñett ñëpp instant yi delloo naa leen yéen mais mais juge juge la guerrière juge juge juge juge <laughs> je reçois trop d'appels je reçois des appels hmm. il faut bien organiser il y a des ni modératrice euh, Khadija Eh, nata parisien la guerrière bu ngeen deglo ñu bes ñi ba paré da ngeen leen di yeen ñent ci modératrices yi mën ngeen fi dess da ngeen leen ni wàcce ngeen ak ñeneen comprendre ngeen bu baax. d'accord parisien gérer lool gérer lool bes ñi da ngeen leen ni wàcce ngeen yégal ñeneen man ma ngi tam moom lañ nekk di def de d'accord dina ñaanal ndax lepp leer na suñu ñu ñu ñu nëbal suñu bop yëpp leer na uh-huh. nag benn question rek euh, la la mo bobu legi mo mo ëpp bop Mm-hmm. nabu nabu nan la mën a nekkee xaritu Aïcha te Aïcha nit ñi dañ doon wax naan euh, copine bi baa baa ci seeraas euh, tamit te dan la mu ne xam loolu ba pare te moom tamit ama amanoona ñu ne ñu ci nit ñi lu ñu wax ñu ne dooma bàcc moo ko loolu moom jaaxal na ma ak ñoom ñaar nan lañ mën a nekkee xarit waaw mais mais mais ma waaw jàpp ça va na nga def. ay xarit xam nga nit mën nga amal nit doom ngan mu nekk sa càmmiñ mu nekk càmmiñ ak jigéen. waaw loolu moom xam nga mënul bañ a ñàkk.

mi ngi noonu ma ne ko mi ngi noonu dafa am ñeneen ñu causé nañ nañu nañu tapoté am na ñu may laaj naan ma naa recommencé mais vraiment foofu yéen daal yërëmu leen ma daal yéen a bëgg may dee ñu ngi capturé rek di teg ok merci la merci am na ko question Yuma Fall ubbi sa micro wala mama nit ne naka résumé na fi ay trois fois ngeen bëgg mu résumé waat tamit waaw mais mais mais nañu yéegal live bi garaawul nañ ko yéegal tapoté mu normal ma ma résumé amul problème mais y a une condition parce que ça bëgg mi ngi bëggee léegi nañ tapoté live def des cœurs verts yéegal ko. ma résumé foog amul problème mooy yéen a may dégg. Nata. waaw. si nga bien compris lu kiy wax Bas. waa kon Aïcha moo menacé nabu si côté ma maraboutage ba ñemewul wax quoi si j'ai bien compris. c'est pas une question que daf ko menacé si côté maraboutage d'après Bas mi Bas expliqué daf ko ne soo ma ci tuddee wala nga dugal ma ci problème bi man ak yow dinañ am problème. léegi nak affaire loolu mom affaire de affaire de gang la affaire de de de tiitalaate la parce que bu fekké tane man ma la présenté nit ak présenté la ay sëriñ problème am suma djéki djéké jékkee na la su ma sama tour dina la def li doko ko mën parce que yow yama won ay sëriñ menace la rek d'après ni bas expliquer dafa foo menace rek allo mais vraiment direction un million yi nañ tapoter affaire yi mu gëna a quoi juste mérite plus que ça salaamaaleykum. maaleykum salaam. maa ngi soxna si. ça va bien. alhamdulilah. bien. ah tey de moom toj ngeen fi moom. <laughs> merci beaucoup. ñu naan toj ngeen fi rajo mais lii moom macha allah. merci jërëjëf à la pluie wax dëgg nag. jërëjëf. ñëpp ñu ngi ne tekk nag di xaar euh, fin bi di xaar suba. waaw macha allah. merci jërëjëf mais a xam mooy Aïcha moom moom na bu ñoo bokk ànd demoon dañoo nekkoon ci kër gi walla mbas bi amoon wala. ah li ni ni ni kii waxee de bas ni mu waxee de nee nañ bi ñuy rey waali ñu ngi fa woon ci lii bas wax. allah akbar waaw. pourtant première PV bi dañ doon wax amoon na ñaari jigéen ñu fi nekkoon. waaw waaw waaw waaw. doon nañ wax loolu après ma dégg ne nabu bi kese lañ jàpp moo tax ma jàpp ne post information la am ko ndekete am na ñaari jigéen dina leer la incha allah nata oui parisienne ki momo ki message léegi bas nee ku soxla numéro bu len ko ko jox na dem ci paasom baxna ok c'est mieux quoi wax na dëgg moo gën a sonal ay appel di la sonal quoi. ba sax su doon may day bàyyi ba ñu jël ay chat ba ne ko rap ba tëj. ñu soxla joxe ay numéro ba jël ñi si des yëpp ñi si mu joxe numéro ndax mu xamul kan mooy kan. loolu laa ko doon expliquer sànq noonu. te fu mu nekk dafa ko nga ci live bi la mais su ma paree dinaa ak ci live bi la. instant bi ku nekk da ci di profité pour na bañ joxe numéro bi de man mo gëna sur mom moom. ok Nata c'est fait néna do ko joxe. Mm. wa non voilà il faut pas il faut pas il faut pas. ñu ngi déggante WhatsApp néna do dootu joxe numéro. voilà légui légui légui yaa légui na Keur River na dem 2000 bu démé 2000 buñ buñ démé 2000 ma ma ma résumé hein voilà je ne vais pas parler pour rien. à la parisienne. moom dafa wax si papa ginnaaw raay. ah. dafa ginnaaw raay. waa ne waaw ah, wax na ci bi jaar na ci vite rek menace yi mu ko doon def peut-être léegi nee na nag. Euh, nee na papa naa woowoon na ko de. waa nee na woowoon na ko menacé ko d'après li mu wax woowoon na ko menacé ko nee ko bu mu ko menacé te su ko menacé bu ko menacé dinañ am ko kii bu nee boobu la ko gëj a woowaat nag. ok. kon xam nga affaire bi kon dinañ jàppaat ñeneen. ah bu ñu jàppee laaj. doy na waar da ngay laaj dossier bi jeexagul de mais kii mooy tax ki mooy weeje ñëpp nag fekkee suba moom loolu leer na moom mooy weeje ñëpp. de suñu live bu bi kay nag na leer na nag bas li mu fi wax kay leer na. xam nga noonu nga mun a waxee suba xamoo lu lay dal xamoo luy xew suba yàlla mun na muumal ñëpp. ñaam rek day <laughs> xew. mais mais mais mais parisienne ah, xoolal bu mais fii moom kenn mënu fi wàcc mais am kee ñëw na de ah. lune sucre bàyyi xaw lune dama koy wàccee parce que bañ ko waxee mu wax ba léegi ubbiwul micro. mais waxal na waxaat na wax. Ah, ci ligne di nelaw. Euh, maman da amaat question wala. bon maman ma wàccee ko parce que. maman daa xaar ko peut-être mën réseau bi la. damaa ëppal. bàyyi la la parisienne comment oui. vas-tu naka oui toog ci kaw rek pour tapoter ziare naa la yéen ñëpp mbokk taalibe seex maa ngi ziare delloo la ko ñii laa ci résumé waa dina nata dina. ah il faut ma tapate ñi <laughs> nga résumé tey jii macha allah. la teg la tegaat. <laughs> kay xam ngeen la parisienne xam nga lan la. dañoo bëgg te dégg dëgg bi. lii mooy dëgg bi nabu nabu la ñu bañoon mu bokk te nabu bokk na far force lay doon parce moo commandité ñun moom leer na moom ba léegi ñun ñuy metti chaque jour que jëfe sama xol bi day gën di bon xol bi day gën baax ñun c'est trop police Sénégal duñ déplacé si zéro rek loolu moom leer na moom ki nekk ci kaw li nga wàccee laay koy dégg <laughs> ce que du oh, <laughs> jóobalaay jóobalaay kër yi vert ma ma ko xaamu ko ngi fii rek pour yéen macha allah kenn du yéen mes sœurs. kontaan ngeen daal pour résumé bi vert la daal c'est bon. waaw ah, kontaan nañu déggoo la parisienne lu mu wax. Hmm. décoré bi la parisienne. décoré bi décoré yow.

li mu demee mooy ñi nga xamante ne ñi ngi laajte résumé man damaa résumé tey ba sonn. mais naata suma sañoon nag ñaar ñi mu jéyeeg wax ba pare. waaw ayca ayca vas-y lay dalal. Oh, oh, nañ tëj micro man maa ngi sama micro waa d'accord kon xaaral ñu wax euh, le dynamique le dynamique vas euh, yi euh, maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen jox seen wàccuwaay ku ci nekk di rafetlu tamit jotaay wi am na solo trop bon man li ma bëggoon a xam mooy euh, parce que man daanaka damaa dabe live bi ma ñëwee yàggul dama bëggoon a xam ba xam mbir mi dafa am rapport ak mbirum li ñuy woowee borom ñaari tur homos wàllum homosexualité

vraiment. d' accord d' accord merci beaucoup. merci aussi am na ci loo xamante ne aussi enquête bi rek moo ko mën a wax. voilà ñoom ñu dossier bi ñu si mën a sori. voilà. waaw ñun ci fait divers rek la ñuy voilà voilà. boo ñun boo boo dégloo wax rek day mel ne affaire tukki bi moo indi lii yëpp xaalis xaalis tukki boobu. voilà Khadija. xaalis tukki bi moo indi yëpp parce que nee na booy bi moo ko expliqué femme bi dafa yaakaaroon ne. kee wax na ko ko noonu la ko femme bi xamee loolu xaalis boobu daal moo indi problème bi mais affaire du affaire wu leen ñi borom ñaari tur yi Xadija man gisuma la woon de damaa gëlëm maa ngi jégalu maa ngi lay ziare. non delloo lay ziare bu baax Léon maa ngi lay ziare bu baax a baax. maa ngi jégalu bu baax gisuma la man damaa mel ne ku gëlëm. Fatou njaay Cissé salaamaaleykum maaleykum salaam maa leen di nuyu leen di fay ñu lay fay man en euh, rek laa mën a wax mooy police Sénégal daal xarañ nañ xarañ boo xamante ne être dañoo xamoon lii yépp moo tax jëluñu woon décision pour juger leen et tout ça ñii di faral na bu lay nag man dama leen mënoon a comprendre kaso xat na xat xat xat xat waaye bàmmeelu ko gën a xat te Aziz moom di tëdd foofu. njóobalaay njóobalaay dinaa tap dinaa dinaa résumé doguma la ma chérie dafa am ñu topp naan résumé mais dinaa résumé. saa continué leen rek après Fatou doo résumé après Fatou. vas-y. bàmmeel xat na xat ki euh, prison xat na lool waaye bàmmeelu ko gën a xat te Aziz moom di fa tëdd di ko xaar. ndeysaan. moo tax nit looy def ci àdduna danga koy danga koy sóoraale man lii dama yaakaar ne jalousie aussi ci la bokk parce que sa xarit ngeen di ànd mu dugal la fu nekk yóbbu la fu nekk nga tëb tëb rek def ko lii nii jalousie am na si mbirum xaalis aussi am na si donc boo nekkee jigéen ngay xool ni ngay def bu baax surtout que nga am doom bu jigéen tey jii nii doomam du mën a si xool nit bu jàngi jee école et tout mooy loolu man daal loolu laa amoon lu may leen di remercier ñi ñëpp affaire bi daf maa choqué daf ma tellement mais bon yal na yàlla leeral mbir mi wax na non jëlagu kàddu vas-y Diagne Diouf la parisienne. Euh, oui Diagne Diouf wa continuer nañ dem na nañ wax rek ba ba après ma ok Diagne est que mi ngi fi. mi ngi daal. Diagne Diouf. Diagne Penda Penda Sakho. waaw génn leen kay. Penda Penda mi ngi fi Penda. xam ma wàccee ko nata tey nga résumé kon. waa ji am nga mën nga kiiwaat léegi léegi ñi may laaj euh, résumé genre njóobalaay yi ñi ngi tappate rek naa ne maa ngi tappate résumé <laughs> bon tey tey li fi xew bon euh, mooy bas bas bi nga xamante ne dañ naan marabu mooy sëriñu nabu mais bas day intermédiaire u maamam la maamam mooy seen sëriñ léegi nag deux semaines duggul ci live bi parce que Bass généralement fii lay waxee mais il s'est trouvé que ne depuis deux semaines nekku fi mais dañu nekkoon ñëw na fi Dakar gisante ak enquêteurs yi wax ak ñoom def un travail colossal jóge fi dem ba ba Gambie par lettre de ses amis de ses collaborateurs yi nga xamante ne ñoom xamante nañu léegi nag ki ñu ne Gambien bi daw mooy Aïcha il paraît que copinu Nabou la kooku moo daw dugg biir Gambie léegi ñu tracé les faits dañu obligé euh, mom dafa def investigation ba xamal ko fan la nekk mu nekk nak ben dëkk bu sori amna ko ubbi micro am s'il te plaît na ko fay voilà il paraît que ak Sa tëj leen seen micro. tëj leen seen micro sinon day day kii léegi nag euh, daf dem na benn Gambie la c'est vrai si Sénégal da fi mais fii ñu jëlee Aïcha il paraît ay kilomètres la ci biir àll bi du coup bu fekkoon ne bas jàppalewul ak ñi mu xam. du sotti ndax di pare que dañ ko fekk ci benn village boo xamante ne benn sëriñ bu mag moo fa nekk te sëriñ bobu kenn du dugg territoire am c'est-à-dire kenn du fa dugg alka il paraît que bi ñu ba foofu police gambienne yu dugg ñu mais police sénégalaise ñom ñoom ñoo dugg ak bas parce que bas dañ ko soxla pour bu gisee Aïcha mu mën a xam Aïcha pour confirmation il s'est trouvé que nak japp nañ ko voilà sur les propos de bas il s'est trouvé que nak japp nañ ko légui nak dañ koy extrader diggante Sénégal mi ngi Gambie actuellement légui nak information bi daal lool la mooy jàpp nañu ki nga xamante ne moom nañuy wax ay Aïcha jàpp nañ ko au niveau de Gambie par lettre de de Bass et de ses collaborateurs ak police sénégalaise ak bu Gambian en grosso modo lool la. léegi nañ nag ci biir téléphone bi sous le contrôle de Bass fekk nañ ci ay détails ni yëf yi demee fekk nañ fi liñ ci buggoon fekk loo xamante ne mën na renverser euh, enquête bi yëpp pour mu gën a leer ci ñëpp fekk nañ ko fa. jàpp nañ ko nak léegi fi ni mom c'est des menaces qui se sont suivies sëriñ bi menacer na bass ay choses yi jàkkaarloog na bass ne koy yaama def li du yomb ci yow mais bass mom fi taxaw mom dafa deuguer léegi nak en grosso modo dal jàpp nañu Aïcha mi nga xamantene moy mooy xaritu Nabou mo nekkoon deuxième jigéen bi ñu doon tudd ci enquête bi sous le contrôle nak de bass voilà s'il y a des questions vous les posez ay ñu ñu tontu ko voilà ñu la parisienne. waa pour ñu fàttali leen que ni bas du sëriñ. maamam mooy ñaan maamam. te dès le début ba nabu lay defee li muy def ba pare avant kenn di dafa woo bas ba mu woowee bas ne ko fekk ñoom dañoo doon ñaanlu ci bas pour ne ko dafa am xaalis bu ñu war a récupérer nga defal ñu ci ay kii daal pour ñu mën ko jël xaalis baa ngi ci Aziz comprendre ngeen donc bu mu génnee woo bas nag ne ko ñun de xaalis bi jot nañ ci waaye dafa am nu mu demee ay xeex nañ fa jàppante nañ fa ba ay gaañu gaañu am na fa dama buggoon nag nga ñaanal ma ba nga defal ma loo xamante ne man duñ ma si takkee duma ci laale bu ma demee kenn du ma téye ci ci euh, police du ma mënal dara si la ko bas defalee ñaanal ko na bu lay njëkk a dem convocation police bàyyiwaat ko mu dem. ba mu demaatee xamul ni police de ko mettre sur écoute pour mën a jàpp yeneen nit yi temps nag bas xëy gis ci internet beeg média yëpp deewu Aziz bi ak rey bi nu mu ñaawee bas affaire bi metti ko mu xam ni kon kon nabu mii lim ko doon wax euh, kii la rey moo moo ci am maamam bi def ñaan nag affaire yi métti ko ndax le fait ko mu ñaanal nabu lay mi fekk nabu dafa dafa dafa dafa taq ci affaire u rey ba pare ñaanal na ko génneel na ko ay sarax nabu lay su ma juumul yónnee na ñaari yoon xaalis bas euh, su ma juumul nataa pour euh, ay nag yu ñu waroon rey ak ay sarax yu ñu waroon def donc nag bas si la xamee ni problème bi sérieux na moom moo jël initiative wax ko waa police donc bas du police moo ko njëkk woo moom moo jël initiative wax ko waa police expliquer leen lépp nan la deme te bas aussi Aïcha moo tax mu xam Nabou Leye donc da leen yàgg defaral ay affaire donc bas teel na xam dès le début que Aïcha ci affaire yi la bokk ndax ñoom ñaar la doon defaral ba ñu jàppee Nabou nag Aïcha daw yéen ngi doon dégg dès le ñu leen doon wax que Aïcha amna ñaar jigen jigéen boobu waxuñu won tour dañ na won amna ñaar jigen yu bok ci affaire yi donc deuxième jigen bobu nak Aïcha la won Aïcha mi daw bas da doon def tout pour ñu jàpp Aïcha parce que Aïcha da doon tekk bas bo waxé ak bo défé li wak ak bo nangamé donc bas defone affaire bi xex personnel ànd ci ak police te suma ma aussi temps yële bas waroon nañ ko convoquer mu def confrontation ak Nabou donc yoy yep amoon na ci euh defena man sama résumé dama dem tib ci début ba na ta wax na len fin bi bo bo fiñu tollu ni tay li tax ma indi début bi parce que tout le temps dafa am ñuy ñëwaat di dan la kan moy bas kan moy bas donc koku moy bas. seen dugguma la mais interne yi ba légui ñi ngi laaj amna ko ne ndax am bas dem na police aussi que 6 millions 800 pour lan la. wa man 6 millions 800 yi dafa am ko ko yónnee. de Portugal won six millions huit cent yi wali waali dama xamul sax ndax wali ak Aziz la wala wali kese mais daal Portugal khalis la bu ñu yónnee pour ñu génn dëkk bi foofu nag sama xel lu tax mu ñaaw sax mooy Aziz boo moytul dafa yag daw seen coow dañ ko yag sonal xam naa il en avait marre man loolu laa xalaat gutu ci woon dara digganteem ak Nabou Leye dafa demoon ba toxique seen jote nee na c'était trois semaines avant xaw ma vingt waa vingt et jours avant rey bi mook Nabou Leye jàppante nañ jàppante bu metti donc nabu da ko da ko amal benn een donc ñoom ñaar seen diggante neexatul woon rattaxul woon ba ñuy rey nag Aziz nabu téléphone am mi ngi doon borne ci koñ bi donc loolu police wax na leen ko mi ngi doon bonne si koñ bi donc xam naa mi ngi woote di xool fu gars yi toll mais ba ñuy rey waali su juumul nabu mi ngi fa moone ne gars yi kii foog ñu éliminer ko parce que gis na ma xam na ni affaire yi demee en gros c'est comme ça ku bëgg am lu muy ajouter sama xel bu ñëwaatee si dara. Euh, ñu ngi naan euh, euh, nabu ban rôle lay joué ci ci assassinat bi ban rôle la ci joué. nabu pour man mooy commanditaire principal bi nabu moom moo bëggoon. te loolu la Bas wax. nabu euh, Bas xam lan la wax Bas dafa ne ñii xaalis bi moo leen taxoon jóg nabu xaalis bi la tegoon ci bakkanam pour récupérer ko xaalis boobu la fit que aussi pour man du aspect xaalis bi kese mais en bi mu am le fait que Wally wax ko ne xaalis bi dañ da ciy tukki. te waali ndeysaan ba mu koy wax nabu dafa fogoon ni Aziz wax na ko nabu ba pare léegi nag nabu yëgu ko woon moom Waly moo ko ko yëgal ne ko xaalis bi pour tukki nabu nag loolu jural ko benn jalousie boo xamante ne mooy loolu daal en tout cas nabu moom moo teg bët ci xaalis bi bëgg ko récupérer d'après bas nag bas nee na moom. na bu amul woon intention ñu rey Aziz dafa ne woon day recruter dafay jël ñooñu dem ne leen menacer leen ko def leen ko lii boo leen kiiwee fii dina leen jox xaalis bi donc ci bas d'après bas moom nee na na bu amul woon intention rey bi mais xam naa nag ba ñu demee ba xeex am ci ba Aziz jël paaka wala menacer leen genre yooyu ba ñu rey Aziz xam naa falat leen nabu ne comme rey ngeen Aziz dinañ xam ni ñun la foog ngeen rey waali te nag après après loolu am na sax leneen lu ci xew ndax euh, Aziz mbëkku bi dóor biñ ko dóor ku bi mu am si bopp ak trois coups de couteau yi ñoo ko rey jam-jam yeneen yi ci des yëpp loolu dafa am ko leen ko digal ñemew ma ko man de papa naa ginnaaw raay dañ ko woo tiit ñu xamul papa naa ginnaaw raay man mënuma koo wax fii bàcc dama koy wax dégg sa waxandooru jëkkër ji maa ngi noppi. non demal demal. commentaire naan kii xandoor kan la. ay waay. Parisien bakkan bi ba wax ba pare. te kat bu mu dégg ma voilà léegi papa naa seet papa naa ginnaaw genre rey yi boo leen ko kiiwee dinañ xam ne yow. parisien eh, ñoom ñëppay xandoor ñoom ñëppay xandoor. <laughs> gars yi dañuy nekk ci live sax di xandoor. donc euh, papa naa ginnaaw raay ne leen ah ci li ma ci li ma dégg boobu sax xaw ma ndax bas moo ko wax loolu xamatuma fu ma ko déggatee euh, papa naa ginnaaw raay de moo leen ne jamate leen foog fekk dee am na ba pare mu ne yokk leen jam-jami pour ñu foog ne lii dof moo ko def ci lañ demee jëli seen dof boobu Mamadou Lamine Diaw indi ko kooku xam naa xamul sax lu xew mu yeggali def ay jam-jam comme ça police ne moom la te effectivement bu mu demee dafa ne enquêteurs yi moom moo rey moom moo ko jam moo tax ñu ne leen yeneen arrestation dina am. yow kii parisienne te. ma chérie la parisienne la de. Mhm. doguma la de xam nga kan moo ko bas moo ko fi waxoon. moom ah, ah, ah. moo ne ñu jëli dof bi ñu jëli dof mu jamate jamate day mel ni dafa ko jam mm-hmm. rôle boobu lañ fa joué xale bi nabu moo ko woo ko kaa ñu dem yóbbu kii dafa sonn voilà parce que ñoom Mamadou Lamine Diaw dañoo confirmé ni Mamadou Lamine Diaw wérul d'ailleurs ba mu ñëwaatee Sénégal léegi matul trois mois mu laal bañ ko ne nan nga ko rayee dafa ne dañu kii moo ma jàppal tànk yi kii moo jàppal loxo yi te xam naa loolu scénario buñ ko tegal la tamit li mu nettali loolu sûrement dafa am mais sûrement ba mu koy def fekk na meurtre bi am na ba pare dañ ko woo rek pour mu jouer rôle boobu pour moom bu demee nettali loolu après ñu ne moom dafa dof te effectivement je pense que am na kayitu dof mm-hmm. loolu lañ leen conseillé nag pour ñu def ko waaye dina am yeneen arrestation bien sûr bien sûr. mais papa naa ginnaaw raay faut préciser aussi que dil bi euh, bokk ci woon yëgu ko. bien mhm. dil bi moom yëgu ko woon bokk si woon mhm. moom après ray bi ba mu amee si lañ ko woo xam naa comme moom mooy kapo bi te am na si expérience si la ko ndaw si tiitee ne ko jaaxle naa nan laay def moom boobaa mu indi ko sori. donc nañ toog seet te boo xoolee témoignage voisinage bi. Euh, li tax mu ne dafa dégg ay yuuxu ay xeex huit heures bu déggaat ay yuuxu seize heures c'est-à-dire waali moom bu muy liggéey ba na leen fa mais boobu phase waxtaan waxtaan la woon mu dem liggéey le fait mu gis leen nag nabulee looloo tax ba Aziz deewee. mu woo mu jël téléphone am moom woo woo waali ne ko foog nga ñëw parce que Aziz dafa feebar dañ ko war a yóbbu hôpital mu nax ko xale bi daw si ñëw xale ba mu dugg see tamit ñu def ko liñ koy def parce que il fallait ñu éliminer ko parce que kooku forcément bu dundoon day nettali lépp nu mu demee. donc defe naa euh, kii naa de doy na de wala. ko am ñi xam ne dañuy laajte ba léegi lutax lutax ñu bolé ci walé lutax ñu bolé ci walé lolo tax ñu bolé ci walé waaye looloo tax ñu bolé ko ci dafa xam rek. xam nga gaay na boko ci bolé boole. xam nga mm-hmm. gaay actuellement li metti ci yeuf yi moy ñun ñëpp day fi def ñu naqar daf fi dafa metti mm-hmm. mais y a que l'enquête qui peut définir ce qui s'est réellement passé. man je mm-hmm. pense que Bas li mo wara wax wax oui donc mooy loolu gis nga une question yi c' pas l'appel de de de de de répondre xam nga lu tax. -hmm. wax waxna fi waxat waxaat li compte rendu la waaye li nee ñu tax ñu éliminer ko suñ ko éliminer lu dalen di bolé point final ñepp ak may dégg. da ngeen këpp si étape ñu dem ci benen étape quand même. vraiment waali waali waali question yi répondre nga ko. Mhm. ki répondre nako ko si ku nek répondre nako quand même nañ ñu may. temps avancé wala nañ dem ñeneen sax boo xoolee. boo leen xolé nak ak version yi ngeen fi jot a dégg yépp li Bas wax dafa tegu torop torop torop te gis nga wax mais la parisienne Bas mooy noyau bi yow déggoo tey jii mi ngi mel ni man ak yow mhm. nga am problème ma ne la ma la parisienne dama am problème nga ne ma man de am naa sama nit ku baax koo xamante ne mën na fay coow dafa am ñoo xam ne ñu dugg si coow bëgg ku ko fay mhm. mais Bas li tax Bas xam affaire bi ni mu demee Bas dañ ko woowoon pour mu fay coow li mhm. au mom peut dem ba ci c'était la personne bu bu parce que Bas mhm. c'est comme ça que ça s'est passé Bas mo len feñal mais enquête bi mënon na mais Bas da ah, en sait trop so il en savait trop il en savait trop. dañ ko éliminer dañ koy éliminer. très bien bu doon ci film la dañ éliminer gis nga tout temps ñi dañuy insister si waa ki yónnee xaalis bi ki yónnee mais xaalis bi ki ko pour man du ci dara nekkul ci ay ray ak ay pourquoi ñi ñu bëgg def entre xaalis bi ñu yónnee ak dee bi dëgg la xaalis bi fa mais ki yónnee moom yoonam newu xam nga li tax ki yónnee bu poser nit ñi problème mooy mhm. une personne normale. Mm-hmm. amul du inceste du dara du posel kenn problème. Mm-hmm. mais li ci ku jigéen ki njëkk dugal ne li mu doon def laa ko doon tere. moo tax ma di ko xëbal. ñu jóge mm-hmm. fee ñu ne papa naa Amérique moo dugal nangam. xam nga déjà yooyu. bu ci amee rek day day indi doute day ça ça sème le doute. mais bu doon une personne normale la rek peut-être. problème du am. mais xëy na la la xale bu jigéen bi njëkk gi moo tax ma ne y a des zones d'ombre yoo xamante ne. yaa que l'enquête qui peut a définir. waa mais gis nga ki yónnee même bu dee ci leneen la mm-hmm. nekk ci leneen la bokk. wala dafa am fuñ ko fuñ ko boole mu bokk ci sax. fuñ yoonam yoon mu yoon toppeewu ko dara daal le fait que nit ñi bëgg focus ci ku yónnee ci ku yónnee pour man kooku jaru ko parce que laalewul dara si si si si bi. xam nga laale xam nga tey bu fekkoonte ne kenn tudd ñëwuñu ci bi ñuy enquête tey. Mm-hmm. da doon boobu rek. daal di ne par exemple dafa doon def nangam ma bëggoon koo xëbal pour mu bàyyi ko. waaw pour pour mobilu mobilu mobilu crime bi. très bien xam nga bañ koo laajee moom loolu la joxe comme indice wala nga ki ki njëkk ñu njëkk enquête ku góor ki dafa ne. diw moo ne nañ ko nañ dem xëbal diw. comprendre nga. Mhm. ko jigéen ki waxaat la même chose.

convaincre ma. moom xaalis bi appart la woon rek mais jalousie am si. non non non man je peux pas man jalousie bi sax ben teesu jalousie bi sax euh munu munuma ko munuma ko ci gis parce que Nabou elle était elle était vraiment partante pour briller et elle brillait mom fim mu briller ko góor ki daaw fa briller kon déjà jalousie biñ ma bi wax man batay munu mako ko parce que elle brillait man mom la gënoon xam ci seen yi que kenen ki kon elle brillait parce que mi ngi mi ngi mi ngi doon mi ngi doon. mais mais naata man jalousie bi gisewu ma ko ci ci côté euh, succès bi de. pour man jalousie bi may wax man mooy emprise bi mu amoon si Aziz boo leen xoolee déglu gis nga Nabou dafa dem ba séparer Aziz ak ay nitam ak famille am parce que frère mi ngi naan ndeysaan man Aziz fi mu dëkk sax xaw ma ko cest à dafa dem ba euh, am emprise trop trop si Aziz moom ah. cest à une perverse narcissique dafa demone ba ba séparer mhm. tellement ñëpp ak jël vie Aziz nak téye ko quand elle s'est sentie menacée xamné nak mi ngi perte Aziz sen digënté du melati comme ni mu meloon té loolu Walid ci jouer rôle rôle bu bëri Wally dafa ñëw Aziz couvé ko ba paré Walid di Aziz yee ubbi ba mi nek un bras droit du coup lépp lu ko nabu mën a lool Walid mi ngi ko koy defal nabu elle a senti que mi ngi perdre place am mais loolu.

laa daawoon dafa mel ni day nelaw de laa daawoon xaaral ma jël faa kon en attendant faa. yow gaa yaa ngi nelaw de. leen ndeysaan xaar nañ ba aywa man maa leen kiiwul de man maa leen toog wax rek. man naata mooy sama formatrice moom rek laay topp. dëgg ah, man maay xeexkat bi dégg ci groupe bi man maay xeexkat bi. man kay gis nañu uh-huh. loolu léegi am nañu nañu wàccee ñu am ñu ñu jël je pense que am nañu ah, ñeneen. Um, Faa doo leen yeewu Faa mii de mi ngi mi ngi nelaw xaama wàccee ko. voilà mais mais mais naka. daa am lu ma jaaxal depuis sànq muy sama xel ma bëgg la ko maanaam ku envoyé six millions huit cent yi. ki ko envoyé. waaw man moom mooy d'habitude Aziz euh, parce que damay dégg ñaari wax mooy jox Aziz chaque fois kii bi nu mu tuddati xaalis ga kii magal bi wala kooku da ko envoyé pour xaa kii ñëw voyagé foofu. xam nga am na ñu xaalis ñaari xaalis la mais man mais man xaalis bi ma jàpp daal mooy six millions yi daal laa jàpp man man man bee man je me ne bële ne wax nañ ko nii mais man daal bii laa jàpp. six millions huit cent bi la moom la sax mais dama dañu may dëgg ñu ne Mbaye moo ko envoyé xaw ma Pape Medina kooku lan la ci jubloo. Papa naa kooku ko tudd fii de man ñëwee ma kooku. ah, ah ñu koy wax de ñu koy wax de mais bon. mais damay dëgg dañoo ne dañoo dëgg dañoo dëgg ñu ne mais lan la ci jublu woon kooku dafa bëggoon indi Aziz foofu ak Wally wala lan loolu tam c'est une question pertinente ah. ah loolu lañ ah, dégg ñun tamit pour voyage daal lañ la waxoon pour voyage la. voyage la. ah doy na waar nabu moom gaa yaa ngi koy seetal ne puto setal nak na bu munul set bu munul set parce que eh, même su dul dara même bu amuñu luñ ko jàppee mais xam nga sa xarit que sa nit dëggantaan yow rus na na parce que ñeneen nitam ñi ngi fa moo tax kenn amul dut ci moom c'est-à-dire dut dut dut rek waruñu ko woon am ci moom naan moom la wala du moom woon am si moom. bu fekkee rek ba ñu ne nabu bokk jëlal juufeen business jëlal. nuyu naa leen di leen ziar bu baax di ñaanal jàmm yéen ñëpp. ñu ngi leen bu baax. Euh, man li parisienne wax rek laa jàpp que aussi tamit dinaa leen xamal dara gis nga Aziz comme artiste la te en plus mun naa ni presque boo dee seet wayu mujj yu bëri moom moo ci nekk di fecc après yàlla daf ko doon taal daal boo dee seet benn moment day am ay nitam yu baax amoon na ay nitam yu baax dem na ba benn instant aussi xam naa ñàkkul ne nit ñi sonaloon ko parce que dégg naa nit ñi naan am nañu ko yàgg di ko sonal di ko agressé fu dëkk ñu agressé ko tamit di ko sono ak ay histoire yu sew affaire yooyu pour ay problème yu sew sewal euh, un moment donné bëgg na mën na am dafa dem ba benn moom mu bëgg tukki aussi te tamit loolu du ñàkk am ku ci bëgg a loolu tax ñu yónnee ko xaalis bi léegi moom comme que da jëloon na waale teg ko ci wetam te waale gis ngeen nu mu feeñee ci kilibu bu euh, artiste boobu noonu bëgguma tudd tur voilà léegi ça veut dire que ni Aziz commencé woon na ko dugal ci milieu euh, showbiz bi léegi buñ bëggee tukki peut-être moom la bëggoon yóbbaale te Nabou Leye voulait partir avec Aziz au lieu de Wally sûrement loolu mun na indi tamit euh, problème digganteem ak Aziz parce que bu sañoon Aziz jugee bayna naan wala muy génn Sénégal euh, donc kon Nabou mom day japp ne mom la wara a doon au lieu de Wali fu Aziz préféré Wali loolu Nabou Leye du ko neex quand même sûrement loolu mën indi ciow tamit ci diggante Aziz ndax neexul muy and ak mom depuis yow gis nga ne Nabou Leye dëgg la dem na ba am ay promotion feeñ na fës na feeñ ci ay série et di feeñ ci clip yu bëri moom tamit mais loolu yëpp grâce à Aziz grâce à Aziz parce que Aziz bokk na ci ñi taal Nabou Leye waaw te loolu ñëpp gis nañ ko mais ce qui laay wax nag euh, kii la guerrière s'il vous plaît euh, Kër Nabou Leye Aziz moo ko taal Aziz moo ko taal bien vrai que nit sax dinga ko taal mu ëpp la succès mais benn moom bu Aziz préféré benn xale bëgg ko jàppale parce que jirim la ndax dégg naa si biir kenn kuy expliquer frère am bi je pense ñu ngi koy présenté yaayam ba daf koy daf koy récupérer yaay ji nanguwul woon euh, kii di jooy waale di jooy euh, Aziz dane ko yaay xoolal kii sax mu ngi jooy yaa ngi tax muy jooy te ndeysaan amul yaay amul papa donc Aziz dafa yëre yërëmoon waali taf ko ci wetam boroom xol koo xool xam ne boroom xol bu rafet la te lii ni mu demee crime bi ni mu amee ak affaire bi mu lay feeñ ça veut que nit ku yàlla àndal la aussi nit ku yàlla àndal rek moo mën a demee nii daal ndax ñoom mënoon nañoo bañ a feeñ mais xamuñu sax lan moo leen demloo ci ci bas di fa wax yooyu yëpp ku yàlla nara weer doo xam sax li lay def loo loolu yëpp mënoon nañ def li ñuy def làqatu affaire yi compliqué balaa muy feeñ muy yéex mais heureusement que dem nañ wax waxtaan ceeg euh, bas bas nekk nit ku honnête ba demee ba jaaxle bu dem police expliquer leen lépp ba enquête bi mën a gën a avancé ba lii yëpp am si ñu ngi xaar nag euh, fan lay mujjee ak lan la ñuy wax ci enquête bi mais man li ma jàpp mooy que ni Nabou dafa amoon jalousie lu mu yëgee tukki bi que ne Aziz dafa nar a dem tukki fexe ba yóbbaale Wally pourquoi Wally pourquoi pas man donc dama nar a perte Aziz à cause de Wally loolu mën na indi ay affaires yu sew seen diggante ndax euh, ku xam boor yooyu xam ne bëri na ay problème mu gang yooyu loolu daal laa jàpp ci sama xel Voilà.